je m'appelle Aminata Sambou. Je suis responsable genre du programme Karongen. Euh, l'objectif de cette rencontre, c'est de, de, mettre en valeur déjà les femmes euh, des zones rurales, les femmes bénéficiaires avec lesquelles nous travaillons. Bon, cette journée qui est dédiée à la femme rurale, le programme a jugé nécessaire euh, de, de, célébrer la journée avec les femmes avec lesquelles il travaille. Auprès de Carongen, euh, nous avons des blocs, des blocs maraîchers qu'on a mis en place euh, à la disposition des femmes. Au total, nous avons 30 euh, installés en cette année. Il y avait 15 en 2023 et 15 en 2024, ce qui fait 30. Mais aussi, il y a des poulaillers qu'on est en train de construire. Deux sont déjà prêtes. en 2025, il y aura, il y aura des poulaillers. Nous avons aussi euh, des taf-taf qui sont mis à la disposition des femmes. En plus de ça, il y aura aussi des unités de port qu'on va aussi mettre en place à la disposition des femmes. L'objectif, euh, bon, c'est de toucher le maximum de femmes dans la commune. On ne peut pas toucher tout le monde, c'est vrai, mais il y a les retombées indirectes du projet qui va toucher euh, la majorité des femmes de la commune. Bon, pour ce programme-là, nous sommes à Oulampan, mais on est aussi à Kataba pour suivre. Tous les investissements du programme 44 4 se fait dans la commune de Oulampan. À Kataba, nous sommes seulement en train de faire le suivi parce qu'on on, on était là-bas pendant 4 ans déjà. Donc on est seulement en train de le suivre euh, pour que pour qu'il ne laisse pas les bonnes pratiques qu'on a déjà mises en place. Voilà, je suis content de ndax bëss bi mom lu reey la jagalal jigen mom xawma fa la tollu ci man tay wa ndax li wa karongé rek mun naa ne waa rek ñoñu formel ci li kontaan na ci torop ndax jigen mom sonn na sonn na dafa ñew noppal ñepp karongé daf ñuy formé d'abord transformation fruits et légumes Sereal, teinture savonnerie eau de javel lolou yëpp for ñu waaw té ñu ngi dem ñun ñi karo nga na tax ñu xam foire trois heures yi ke kataba sinja karo nga na tax ñuy xam foire chaque année dañuy dem foire ko lolou lu reuy la kontaan nañu torop te nuyu bu baax wa karo ngeen yalla li jëm kanam ñi nek suñu gënaaw tamit ñu japp ci bu baax comme ñun ndax ñun fuñu ne deug deug dëgg ñu ndax man tout récemment la défar madar sama dëkk sinjan Madar kay sedra lu nek ñu ngi koy défar diko jaay am lolu way fu melni avec karo ñu ngi am yépp dañuy njëriñu ci lo nek garab yi nek fi mom lañuy jël diko kay ñu ngi def pofton ñu koy def waaw ak nebedaay ñu ngi koy utiliser pour savonnerie moom même xob mango yi nañ ko def pour ñun lu ñuy ñaan fu mu ne nii formation yi ndax formation dafa bëri yooyu la ñu bëgg mu ñu gën a appuyer bu baax ci ñun ak bu ñu amee ay unité de transformation moo ñuy gën a arranger am commune yu ko am commune de Djibidione am nañ ko ñun yépp fofu la dem dajalo, commune de Djingaké Kataba Sindian fofu la dem dajalo commune de Djibidione ñu fay ñu ñu produit ñu produit lolou nak def na choono bu reey ci ñun buñ ko amone ku nekk nga am ko si sa dekk ci sa commune lolou mo ñu gën a ndax luñu mëna am comme bénéfice dañ koy jël passé ko dem te buñ démé da ngay fay encore location tout récemment def nañ dossier DER waaw génnagul xamaguñu nag waaye en tout cas lu ñu dégg moom dañu koy dañ dañuy defar suñu dossier yóbbu ko xëy na ñoo amagul sens waaw ñu ngi ñaan état bi nañ dimbale rek ñu am bu ñu amee ci loolu xëy na dina gën a oyof ci ñun.